su fekkee defuñu des actions au niveau par exemple du littoral sud comme du littoral nord euh, am na risque bu ngand bu ci am mooy surtout si littoral sud bi dinañ dem ba plage yëpp dinañ disparaître xam nga plage aussi bu ñuy disparaître c'est-à-dire kër yi nekk si booru géej bi yëpp presque dinañ disparaître soo jëlee aussi si littoral nord bi euh, état bi def na fa ay investissement lu mel ni la VDN bi fa nekk léegi su fekkee fixé wuñu aussi foofu les les dunes ba nga xam ne géej gi avancé wul euh, risque bi aussi mooy tous les investissements tali yi fi def yooyu yëpp euh, mën na mën mën na mën na ko yàq donc euh, mu nekk loo xam ne li daal il ñu jël ci matuwaay mooy dinañ fexe ba xool na nañuy fixer les dunes ba nga xam ne au niveau du littoral nord aussi géej bi dootul dootul avancé